bëccëg la boo xam ne ni ki démb maanaam ñuul na kukku ndax ñi nga xam ne ñooy sage-femme yi ñoo grève te nag démb bëri na ay jigéen ñoo xam ne dañoo demoon ci bërëbu fajukaay yi nga xam ne ñooy sage yi a jël maanaam ànd ak ay malade dem ci hôpitaux yi ñoom ni ki ñoom tim dañoo mer ba maara détaal yi réseaux sociaux yi ñoom tim ni ki dañoo mer ba maara détaal yi am na ñu nekk ci internet bi démb yàkk nañu musiba ak mbelengaan ñi nga xam ne ñooy dem bëgg a mucc kenn faaliwu le na kenn assisté wu le na loole nag journal bi di réew mi ko di jeyee ak le témoin nee na loole la ñu nemmeeku ni ki démb ci Sénégal en tout cas li ambade sala état bi war nañu see jël ay matukaay ndax liy raama sañak ba la jëm te bu fa amee kër du baax yéen a kaay gi di l'observateur nee na li nga xam ne moo xew ni ki démb ci Sénégal doy na waar lool bëri na ñoo xam ne sonn nañ ba maara détaillé te kenn faju le na kenn la le na kenn xoolu le na ndax ci diwaanu Rufisque wa nga xam ne ñoo fa yeewoo ña demoon ca hôpitaux ya sonn nekk Mbuur ñoom dem ni ki démb kasaalika ña nekk Tamba Louga Diourbel ak Kolda foofee yëpp bëccëg la boo xam ne daal ña nga xam ne ñoo fa feebar dañu doon loo ak dee yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na grève bi nga xam ne démb am na ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi étudiant yi nga xam ne sax ñoo nekk médecine ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom tim démb dañoo dugg ci grève bi ñu laaj leen ñu ne dañuy solidarité yéen a kaay gi ne na ginnaaw bi yi nekk ci wàllu wér gi yaram grève nag tey ji ñi nga xam ne ñooy pharmacien yi ñoom tim ñooy jëla en tout cas doy war a gi di wal fajiri nee na bi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dund métti na lool soo muy tuulee nag ak fipp dina am ci lu jëm ci wàllum xiif bi ndax Sénégal yi ndóol nañu carburant amul ci réew mi journal bi nee na njëg yi ba nañ ba maara détail yi yéen a kaay gi du l'observateur nee na lu jëm ci wàllum kérosène Sénégal nag am na lu toll si ñetti bato waaye nag ñaari jamono ji na ma poor yéen a kaay gi di réew mi ko di jeexee duñu xibaar ñu nikk démb ci lu bi yéen a la dikk division des investigations criminelles te Aliou jiite woon ko jëlee nañ fa Aliou ku ñuy wax Adramé Sarr mi nekkoon commissaire bu Ziguinchor moom lañ fa indi jamono ji moo jiite dikk yéen kaay gi di Sud Quotidien ak Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Boubacar Biaye ak Mamadou Sall mi nga xam ne ñoom la ñu tegoon loxo ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique ni ki démb la ñu leen doon àtte ca tribunalum Dakar bi nee na li procureur bi wax nee na ñu tëj leen lu toll ci la ñuy tëdd yéen kaay gi di ni ki démb procureur yekk na leen musiba ak mbelengaana na leen yéen au lieu ngeen nekkal fi askan wi ngeen di yëngutu ci lu jëm ci wàllum escroquerie maanaam ay tappale ak njublaang yéen a kaay gi de la témoin fukki fan juróom-ñeent ci weeru mai lañ leen di létt wala ñu firi leen maanaam délibération gi yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar mbir mu garaaw a garaaw a garaaw Omar mi nga xam ne moo nekk PDG Odis Group International dañu police am bii nga xam ne mooy Mamour Bounama Sarr moom dafa daal di la wàqat bi nee na ni mu demee nag Omar Sow mii nga xamante ni mooy PDC Odis Groupe International te mu dëkk Bambey moom nag dafa jëloon xaalis suñu baree baree bare wax leen ne leen man dama xam ñu baree bare ci nguur gi daal maanaam relation bi ma am ak bi mën naa leen a lijjantil ay terrain centre ville la maanaam ay terrain ci biir xolu Ndakaaru te loole nag dara amu moo tax jamono ma bu kumba dina dal ci kawam yéen kaay gi di